asalaamaaleykum <clears throat> maa ngi leen di siyaare info national siyaar naa leen bu baax jéggalu ci géej gee dugg di wax ne ñàkk jot bi la rek ñàkk jot bi maa leen di siyaare bu baax di ñëw ci audio bi ni waa ji di expliquer si àdduna eh, bi dëkk yi nga xamante ne si ne yëpp ay réew lañ dañoo nekk am dañoo nekk dañoo nekk ci xeex gis ngeen Soudan man nag dama koy fàtte lu bare bare bari di ko fàtte di tudd mais Soudan réew la boo xamante ne si ne la fa nekk jéggi na day wax lool lool lool lool lool sax lool waaye nag dafa nekk boo xamante ne si ne xeex ba mën naa ne mm, xeex bu jarul xeex la parce que affaire du ethnicité bi nam fa mel ak pauvreté bi nam fa mel waroon nañoo xoolaat seen bopp par rapport dafa am xeex yoo xam ne dafa logique am xeex yoo xam ne nag logiqueul parce que Soudan ci seen biir damay ragal la dal Somali dal leen mu nekk xam nga Soudan sax xaaju na ñaari xaaj waaye damay ragal mu xaajuwaat parce que Somali am na Somaliland am na Somali. parce que lolo ko indi damay ragal nak Soudan di Sud benen Soudan bi ci dess ndotu amati Soudan ci jëmi bopam bi ni xex bi am mu wat benen xaju ta lolo wax deug fa yalla nekut lo xamne ne lu rafet la fofu lañuy jubale rek wax daanaka ci Israël ak euh, Palestine wa xex la bo xamne tamit momit Israël ak Palestine daanaka fi ne ni eh, Hezbollah mom commencé na dugg ci xex bi wa actuellement. li ma leen waxoon laa leen wax rek mooy maanaam Amérique moom lu mu mën di wax moom jarul gëm parce que ñoom ci ci wax lu dëgg lañ mas di nekk ba fi ne nii boo boo fa demoon fi ne nii ñu ngi préparé waat pour renforcer Israël donc ci la ñu nekk ñoom américains yi waaye li leen jaaxal mooy Liban xeeti armée ya nga xamante ne sii de armée nañ pour préparer guerre parce que Israël bëgg naa dal ci kaw Hezbollah léegi nag ñoom ñi ngi jort ne eh, ñi ngi jort ne Iran moo nekk ci gannaaw loolu amul njort looloo am parce que seen servi de renseignement yi eh, xamal nañ ne waa Israël danañ dal ci kaw Liban te dal ci kaw Liban daanaka mooy dal ci kaw Hezbollah mooy loolu rek waaw fële nga xamante ni si ne moo nekk ca Gaza it Rafa attaques yi fay def maanaam seen armée ba armée bi moom mooy yàqu ñoom ñoo ci ñàkk di deele lu bari mais jëmmi biir biir biir Israël li ko dal moo dal Ukraine seen population yi ci seen biir ñi nga xam ne ñoo jur armée yi xam nga ñoom dañoo bëgg xeex ba pare bëgg a continuer di dund loolu mooy problème bi bokkut ak ki nga xam ne maam daa yemale dund ak dee tax fi ne nii dañuy nekk di xëccoo ko ci seen biir ñaaw waxuma la pression bi muy am ci àdduna bi ci ay manifestation waaye biir réewam ay famille yoo xamante ne si ne leer na ma ne danañ ko jéem a yóbbu ci yoon loolu nag lu leen jafe parce que li may wax rek eh, seen première ministre ministre bi Netanyahu ak ministre de l'intérieur ñoom ñëpp sax laay wax procès la boo xam ne lu ndaw lañ ci rek dañ leen a jox ñu di ko diriger rek parce que juif yi ñoom lii luñ lii lii yàgg nañ koo def moo tax ñu bëri naa du nangoo bàyyi parce que nangam bis bu bis boo gisee ne bàyyi nañ rek dañ leen a gën a jekku waaye li fekk ñi ngi am yaakaar ne jàpp ne ñoo ñoo waa Gaza dañuy continuer foncé di ànd ànd ko ak américains yeeg français yeeg ñeneen mel ne ñoom ndax guerre yi nii yëpp boo ci xool da ngay gis ne amul tànk gannaaw ndax tey boo ñëwee ci Russie ak Ukraine yaa ngi gis ne amul tànk gannaaw moo am ca Gaza parce que ku nekk bu dee ci côté Gaza Hezbollah yi ci Liban ñoom armé wu nañ bu baax sax. bo ñëwee ci côté Russie Ukraine looloo fa am ndax eh, Joe Biden ak Macron ñi ngi dajaloo di waxtaan Macron dem na fële ci Allemagne dajale nañu bari dem na ci Royaume-Uni bañ jox ko seen faveur léegi nee nañ dafa bëgg a jël ay nit ngir ñu former waa Ukraine waaye waxul dëgg daa préparé pour jël pour jëlaat ay nit sax yàgg na koo def yàgg jëli nit ñuy dem ñu e e, e di leen rey yàgg nañ faa yóbbu ay matériel ñu koy yàq waa waa Russie di ko yàq waaye ñoom ak waa Allemagne ak waa loolu waa yëpp indi xam nga ne buñ àndee man su ma toogee di leen gis ñuy ñuy wax rek dama naan deuxième guerre mondiale Allemagne ak France ko waral ñoom ñaar ñoo ko waral te tey ñu ngi nii ànd nañ kon gannaaw bi ñu xeexee seenu xeex ñu ànd moo tax gars yi dañoo am feuille de route daa am fu ñuy lu ñuy déroulé kii nag euh, Macron nag décision bi mu jël te coow li bari ci digganteem ak waa Russie parce que Russie moom moo yey nee na képp ku ci jël matériel attaqué ko ba mu leer na ne matériel bi Amérique la jóge wala mu jóge France déclaré na la guerre moom nag armé na ba taxaw moom nag armé wu na ba taxaw moom Russie parce que lu logique la fii ne barki démb am nañ benn sommet de la paix boo xam ne ñi ngi ko doon def. yaakaar naa Suisse lañ ko doon defee réew yu bari teew nañ ca ah, ba mu des réewum Siin nga gis président Ukraine ba di ca xarab waa Siin di wax ne ñoom dañuy jàppale waa waa ba Siin génn ci di leen tontu diggante France ak Russie ku nekk yaa ngi commencé di jàpp ci say doom am na am na koo xamante ne seen benn nee na français yi nee benn ONG la du seen doomu France boo xam ne Russie ko jàpp. nee ab ONG bu mu yoroon fële ca Russie boo xam ne waa Suisse ñoo ko yabaloon waa Russie nag ñoom jàpp ne moom dafay nekk koo xam ne ku leen di espionné teg nañ ko loxo quarante quatre ans ama quarante ci lay tool boo demee fii ci France tamit am na doomi Russie yoo xamante ni seeni tamit noonu dañ leen def kon ça veut dire que ne wàllum diplomatie ñoom ñaar mi ngi xëy di gën di teeñ mais ku mel ne Marie Le Pen ku mel ne Nicolas Sarkozy ñoom d'accorduñ ci Macron ni muy doxee ni muy doxalee am na ci ñenn certain ci français yi sax yoo xamante ne si ne dañ naan Macron xale la jëfi xale dëgg lay def ñoom ñu ngi koy wax ne Macron moom ak premier ministre bu bi jëfi xale dëgg la ñuy def parce que Joe Biden moom daa bëgg sax armée yi muy jox Ukraine bala ñu koo tiire mu yabal fa ay nit pour ñu xam niñ koy tiiree waaye Vladimir Poutine moom lim wax leer na mi ngi taxaw di leen xaar képp koo xamante ne si ne sa matériel dal na ci eh, ci réewam moom déclaré nga ko guerre xam naa ne nag dama koo fàtte woon sax ndax waa Union européen démb démb ci àjjuma ji ak tey ci samedi ji ak suba ci dimanche ji ñi ngi waaj ñi ngi waajal waajal eh, ay élection suba ci dimanche ji nag la élection yi jëmmi jëmmi sax di mat ci lay jeex xam waroon naa ci ñëw bu yàgg waaye ñàkk temps lool sax maa ngi nii dama gëmmentu ndax sonn waaye euh, union européen suba la ñuy def seen élection yi yaakaar naa mi ngi toll ci sept cent vingt seize parce que seize bi maanaam capital bi par exemple fañ koy defee ma fa seen fa seen euh, pencum toogu euh, toogu toogukaay wa ma nga nekk fële ca Belgique ca Belgique la nekk boo xoolee nag moo nekk nii ci parlement yi parce que sept cent vingt seize la waroon doon séddale ko ci réew union européen yi xam naa ne détails yi dëgg-dëgg nag temps bi da ko dul mate waaye konoon sax danañ ci ñëw indi ci ay leeral waaye liñ ci bëgg dañ koy tënk rek ne wane ne campagne biñ fi doon campagne daanaka enge bi mooy seen digganteeg Russie ak Ukraine ban taxawaay la ci député yi union européen yi war a taxawaaye li nga xamante ne si ne mooy jëm ci relation économique ban taxawaay lañ ci taxawaay ak wàllum immigré wàllum immigré yi ak guerre bi nga xam ne mooy am ca Gaza fële ca Israël yooyu daal mooy enjeu bi moo nekkoon enjeu bi ci campagne bi Macron nag ci sondage yi li mu wane ci dëkkam moom daa mel ne ak parteem boo moytuwul ci li sondage yi wane du baaxle mën naa mën naa bañ a gañe ci France parce que élection yi maanaam nekkul ne ku gañe rek maanaam député yi ñi gagné France buñ demee ca siège ba France lañuy lañ fay teewal déedéet demewut noonu maanaam koo xam ne daa bokk ci parti socialiste bu France bu fekkee ne ñoom ñoo gagné euh, maanaam waa goos tey buñ buñ gagné woon waa droite par exemple ci France waa gauche buñ gagné woon waa droite dañuy dem lëkkalook waa goos bi nekk ci Italie wala waa gauche ba nekk ca Allemagne noonu la affaire yi demee bu ko defee ñoom. ñu daje ca toogukaay bokk bokk fa maanaam bokk fa liggéey moo tax daanaka euh, élection yi dafa bëri ay enjeu parce que boo xoolee euh, Victor Orban mi nekk ci Hongrie wala fële ca Pologne nga xam ne ñoom seen diggante Russie actuellement neexatul ña ngay commencé di tëj seeni frontière bu baax a baax nga xam ne il bien ñuy tuddee Kaliningrad nga xam ne Russie ko moom taw moo frontière ak Pologne Pologne daanaka ma nga fay gën a yokk sécurité bi actuellement daal eh, ni ma ko gisee nii gars yi xam naa ne nag xeex nag du yomb duñ gaaw a xeex nii xeex mu metti waaye Macron moom làmmiñ wi rëy na damaa xamul nag ba jëf ji nan lay mel waaye làmmiñ wi moom rëy na trop trop trop moo tax élection union européenne yi eh, damay ragal ñi nga xamante ne si ne dañoo bëgg a dugg ci guerre bi te nekk ay premier ministre wala ay président euh, sen, sen, sen député yi leen wara a bo may tout ñëpp ay ñàkk loolu moom euh, sama setlu bop la xeyna na ñak temps moo top deug deug deug ba top ma ba top mako ko jangat bi si am dal xamna ne ku melne Macron ku melne Kenen Kenen ci ay njit ku melne njitul euh, kenen kenen dal ci njit yi nga xamne tane seen ci union européenne lañ bok ñi leen wara téwal ci élection yu suba yi moy moytuwul ñu ci bari dana ñak parce que ku wala wala ku ci xamne da ngay incarner pour yow ne ñeme nga pour dugg ci manam yaangi yaangi yaangi yok ci xar mi karaw élection suba yi ci union européenne ka gagné ko parce que nit ñi ci biir Europe citoyens yi bëggu ñu guerre am malgré que Ukraine am nay problème yërëm nañ ko waye guerre bëggu ñu am parce que Vladimir Poutine dafa sévère ci ay waxam waaw ci mo koy tëjee ci Europe rek moy xam leen ni daal ci côté Ukraine moom amatuñ kenn kenn kenn ku leen xeexal loolu moo am moo tax Macron ak Joe Biden ak Olaf Scholz la xawma ñu am xar kanam gii pour jàppale Ukraine Ukraine actuellement nii may wax yow dafa manqué ay nit léegi nag benn mer mu metti moo am biir Ukraine mer ba mooy village yi dëkk yu ndaw ya nga xam ne ñoo nekk ca biir Ukraine xale yu góor yi fa nekk yëpp dañ leen a jël dugal leen ci armee ko fay góor sax laay wax te man dara waaye nag boo demee biir ville ba danga fay gis ay xale yu góor loolu moo metti village waay loolu lu leen metti la deuxièmement bi tamit mooy am na ci ñoo xamante ne si ne seeni doom yàgg nañ ci front bi amuñu yenn information yu mat yi wala bu fekkee am nañ ay gaañu gaañu tamit may ñu leen ñu ñu gis leen wala ñu am benn contact ak seen famille mooy mooy li ma leen waxoon ci Israël rek parce que ñoom ñii ñëpp xeexewuñ ngir yamale dund ak dee dañoo bëgg a xeex ba pare continuer di dund loolu moo leen sonal moo tax xam naa ne foofu laay tëjee di wax ne loolu nag moo indi problème moo tax Zelensky am na sérieux problème parce que population ukrainienne yi ba pare dañ koo commencé di mere lool. malgré que propagande yi bari na waaw parce que nit ñi da ci am ñoo xam ne ku ci gisut sa doom leneen leneen leneen ngay xalaat lu bokkut ak yow moom nekk ci xeex bi waaw moo tax jeune jeune jeune ukrainien yi ñu am na ñoo xam ne dañoo daw génn am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci seen biir kër yi tu nangu ñoo génn seeni parent leen làq parce que buñ génnee gaa yi dugal leen ci armée moo tax fii dañu doon lijjanti ñi nekk ci kaso bi te am yenn peine yi ku ci d'accord wala ñu ñu ñu fexe ko voté ci assemblée national bi jàllale ko ñu dugal leen ci armée bi après ñoom buñ gañee léegi nag bu ko defee ñu daal leen di eh, bu ko defee ñu daal leen di bàyyi mais loolu laa yaakaar na moo dul am waaw léegi daal ñi ne ci pression bi daal lañu yaakaar dañoo manqué ay ay ay ay góor moo tax daal xam naa ne loolu foofu laay tëjandi ko damaa xaw a mel ne lu sonn mais konoon sax information yi dana gën a yaatu